ak ñi nga xamante ne ñoo di membre yi euh, ñu ngi euh, foofee nga xamante ne euh, ci kuréel yooyu ndax ba tey dissoudre ñu ñaari institution yooyu Ndeye faatu par rapport ak li nga xamante ne moom la premier ministre wax lim na nag lu bari jëm ci wàllu waaye itam appliqué nañ yenn yi te itam nee na leen fukki fan képp mën naa wax ne moo leen fi dese surtout ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci assemblée nationale. waaw tu as bien fait d'avoir souligné le mot premier ministre Fatima parce que loolu moom ça interpelle les Sénégalais. Mhm. boo woon le président du PASTEF ma ne loolu c'est un camp. mais le premier ministre du Sénégal du Sénégal kooku sénégalais yëpp la intéressé. Mhm. et je demande quel problème les Sénégalais on avec le premier ministre l'actuel premier ministre fan lañ ko tooñ te yëguñu ko fan la ñu jotee moom te yëguñu ko. ak ban problème lañ am ak moom parce que tamit le premier ministre boo gisee ci ay waxam toujours mer y a une colère y a des menaces y a termes yoo xamante ne ñun amuñu vraiment benn benn mérite bi venant d'une personnalité boo xam ne dañ ko fi teg pour mu liggéeyal askan bi parce que c'est le premier ministre de tous les citoyens mais malheureusement quand il parle c'est un chef de clan qui parle souvent surtout que tey bi muy wax di joxe information yi c'est dans un cadre républicain la ko tenir à la primature lors d'une audience avec les agents de la primature comme pour dire kon moom premier ministre biñ ko fi tegee 2 avril ba tey jii tey la le 3 septembre ou 4 septembre donc 6 mois après lay doog a gisee agence de la agent de la primature muy benn mbir hmm. parce que tamit buñ la joxee kuréel jox la institution nga di ko jiite nga mën a def juróom benn weer doog a dajeeg agent yi ah ñooñu kon dañuy xaar donc il nous moom yëgal nañu ne moom ak waa primature tey la ñuy doog a daje pour ñu waxtaanee lépp lu jëm ci kër googu noonu muy benn fay parce que loolu mënoon nañu ump ñun parce que on le savait pas on savait pas que waa primature am nañ jiit te gisuñ ko toog ak moom échanger ak moom depuis six mois dans le même cadre républicain muy annoncer des choses yoo xam ne ay actes yu président de la république war a la est-ce que moom moo waroon a wax loolu depuis début de matine wala fin de matinée la wax ne dinañu teggi ñaari bopp yi ci institution yi parce que décret moo leen fa tegoon est-ce que moom moo ñu waroon jox primeur bi dans un cadre républicain est-ce que c'est le premier ministre qui doit annoncer des décrets présidentiels pour man foofu étape xotti nañ war maam teggi nañ suuturay état parce que état quand même am na loo xam ne du ci mbedd mi lañ ko war a njëkkee xam balaa ñoo indi papier yi ko war a mën a certifier donc c'est benn fuite la mun nañ jàpp ne fuite d'information am na depuis ce matin avant ñu koy concrétiser wala balaa ñu koo yëgal le publique parce que les Sénégalais ont le droit de savoir muy euh, beneen mbir essai poursuite judiciaire pour la énième fois c'est le premier ministre ki nous parle de poursuite judiciaire mmh. est-ce que c'est la personne bi nga xam ne moo war a wax waxu poursuite judiciaire kon pouvoir judiciaire amul au Sénégal parce que moom exécutif la wala dafa fàtte ne moom exécutif la est-ce que exécutif moo war dogal wala moo war a yëgal nit ñi ne wàllu yoon dinañ ko doxal ci ñenn nit ñi. pour man loolu violation. ba tudd ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi au niveau de l'extérieur. violation la parce que fii nit tant que amuñu benn sentence bu ñu la prononcé la présumé innocent nga mhm. on ne pas condamner des gens avant que tribunal ne ñi dañ leen a moo tax on ne peut pas dire que ñii ay sàcc lañ mënuñu wax ñii dañoo détourné parce que loolu tribunal bu ko décidé ba pare ci lay doon lu ñuy certifié mën kaa waxal ay nit donc ñooñu mënuñ ne dañoo daw parce que ba tey jii amagul procès wala lu ñu mën a jàpp ci yoon ni ñii ay defkat lañ yaa ngi leen di tuumaal yaa ngi leen di tooñ bu ñu demee bu ñu demul ba léegi yow wane waneegoo luy wane ne ñoom ay defkat lañ kon su leen neexee tukki donc franchement la premier ministre dafa war a am un discours d'apaisement foofu lañ koy xaaree parce que yoratul lu moomal boppam. c'est ça dafa yor lu ñëpp bokk. mu ngi yor budget boo xam ne état lañ ko ko nattalee vingt cinq milliards te loolu ci xaalisu sénégalais yi la jóge léegi nag munoo yor lu ñëpp bokk ngay doxalee na mu la neexee ak na la soobee déedéet on est dans une république on n'est pas dans un royaume il a trouvé une république bâtie depuis 1960 mhm. et cette république na doit pas s'effondrer dans ses mains mais lii ñuy gis nii c'est une république qui risque de s'effondrer parce que les fondamentaux et les principes même ñu ngi koy bafoué et de violation flagrantes yoo xamante ne c'est une autorité de l'État qui le fait mhm. loolu dañ koy déplorer parce que buñ ko defoon ci beneen régime aussi on allait le déplorer il faut que le premier ministre arrête ses menaces. ay a trop de menaces su amee ñu def nañ leen jël yóbbu leen ci yoon ñu wuyu devant la justice. mais c'est pas un discours boo xam ne dafa war a nekk comme benn son wala benn single wala benn tube boo xamante ne depuis le debut de l'été ñun ñu ngi ñu koy imposer dafa war a wax li jëmale réew mi kanam foofu lañ koy xaaree. surtout que bu nekkee ci primature la toog di wax avec des agents de l'administration sénégalaise il y a un minimum de retenue parce que on n'était pas dans un terrain politique assemblée nationale motion de censure am du jàll loolu quand bi nekk ci assemblée ñoo ko war wax parce que man duma voter yow doo voter ce sont les députés qui vont voter le débat se tiendra au sein de l'hémicycle donc c'est pas à lui de dire que ça va passer ou ça va pas passer parce que moom il sera pas acteur pour man loolu mooy wax ci te coowal institution yi yëpp dara indiwu ko fi lu mooy DPG bu premier ministre war a def boobu ba léegi ñu ñuy jàddloo di ñu taxawloo di ñu tourneloo s'il avait fait sa déclaration de politique générale tey duñ doon yegg yegg ci crise institutionnelle bi mais c'est ça il n'a pas fait sa déclaration il y a pas de dialogue entre institutions et maintenant on vient avec des mesures yoo xamante ne unilatérales et puis dafay mel ni benn doole bu état bëgg a exercer et ñun loolu lañ fi nekkoon di xeex depuis. et bloqué et bloqué euh, des institutions. encore une fois quinze milliards nee naa pour année bii moom du mët quinze milliards parce que budget bi commencé na depuis janvier nañ ko wax mu leer et quinze milliards yooyu noonu buñ ko sakkanalee loolu noonu lan la mën a tere ci yow li ngay jëndee mburu fanweer mu wàññeeku. parce que sénégalais yi xam nga lu leen ñor mooy lépp luy impacté ci seen vécu ak seen quotidien mooy boo xëyee li ngay paas li ngay utiliser ak li ngay jënd ba ngoon. pour le moment loolu mooy priorité priorité mooy ñu ngi mal ouverture des classes ñëpp xam nañ ne. Hmm. dans le privé. parents yi sonn nañ fi ne parents yi depuis un mois ne oh, ndax ku am quatre ou cinq gos wara a ku ci nekk plus de cent mille wala plus de deux cent mille kooku am nga lu la doy. fourniture yi ñëwaguñu. pour man nit ñi am nañu yeneen jafe-jafe yoo xam ne fa la nguur war a taxaw en amont pour mën leen ci taxaw mais du jamono yi nga xamante ne pour nga dem sax ci hôpitaux yi ñu faj la da ngay génnee xaalis duñu faj nit te génnewul dërëm nga pauvre ak loo ñàkk-ñàkk boo génnewul duñ la faj loolu mooy priorité et les urgences yi mën a atteindre les les populations sénégalaises parce que ba ñu demee ba def un changement ils s'attendaient à ça c'est les sénégalais mais du cette querelle politicienne à n'en plus finir et aussi ces tiraillements un premier ministre vraiment très colérique boo xamante ne su waxee rek c'est dans un ton colérique buy adressé wu aux Sénégalais il faut que ça s'arrête parce que fii du jur goo xamante ne dañ leen a teg am ku leen jiite ay citoyens ñoo fi ne jël seen sañ-sañ dénk ko ay nit il faut que ñu respecter leen papa waxul ak doom yaay waxul ak doom ay nawle nañ nañu nawlante ci waxin nañu nawlante ci jëfin et cette justice des vainqueurs nu mènera à nulle part Sénégal pays sous-développé la dañu war a liggéey sa pays mais on ne pas du suñu njëriñ ñu nekk fii chaque fois des procès des problème yoo xamante ne lépp ci politique la rek la lalu laalu li nga xamante ne mooy jafe-jafe askan wi nga xam ne ñoo leen fal. am na solo Ndeye faatu ci wàllu woowu la ñuy desandi abu Diallo jëm ci rek li nga xamante ne moom moo di euh, ton menaçant euh, bi nga xamante ne def na ko ñenn yi di laajte itam ndax moom moo war a jël décision euh, annoncé lu nu mel comme ni ko Ndeye faatu waxee en tant que premier ministre. ñu mhm. te nekkaat wax euh, combat politique politicienne bi ñu nekk ñun ñu nekk ci bëgg ñu topp leen ci am na sénégalais yu sonn am na fenn fu ci laal fu am solo sur le privé donc euh, mooy l'école privée bi mu laaj ni ñu ngi jëm ci préparatif école euh, ouverture yi même le privé boobu subvention bi ñu leen faral war a di jox subvention bi ñu leen war a di jox ba léegi jotaguñ ci je parle sous le contrôle d'une directrice d'école boo xam ne bi muy jëli résultats cent pour cent à Thiès